ñu ngi ci deuxième mandat deuxième quinquennat la ñuy aborder en 2024 ah déet yéen Barthélémy Diaz opposition bi ngeen di xëccal Barthélémy Diaz moo toog constitution bi nañu xaar ba conseil constitutionnel constitution bu ñu wax ngeen indi ñu Barthélémy dama ne xam nga ku nekk da jox sa avis yow fi ne doo constitutionnaliste man duma ah, conseil constitutionnel mais dégg lañ tubaab te mën nañ lire aussi bi xam nañ ko xam nga dañ ne ku sa wujju xam nga man boo gisee ma indi Barthélémy uh-huh. su ma waxoon keneen ci suñu parti da nga naan li ngeen faratax mais dañ naa ko sa wujj di sëlëm doo set damaa indi suñu wujj xam nga waxu wujj moom si wujjam wax dëgg yàlla nit da ko war a gëm parce que wujj bu wax ne sama wujj kat rafet na wax dëgg yàlla war nañ gëm ni wujj bi rafet na. Mm. ndax bu rafetuloon du ko wax du dëgg parce que amu ci benn intérêt. Barthélémy Dias si moo toog ni président Macky Sall ci constitution bees bi mi ngi ci premier mandat de cinq ans constitution bi xamul mandat wu sept ans mandat cinq ans la xam 2024 dafa am droit briguer deuxième mandat de cinq loolu nag wax dëgg yàlla ku naxul sa bopp te nga jàng mën a liir tuuti war ngaa xam ni constitution li mu wax loolu mooy dëgg. lu mu wax nul ne plus de deux mandats consécutifs. nul ne peut faire plus de deux mandats consécutifs. waaw kay Macky Sall def na benn. déglu leen ma rek déglu leen ma rek. constitution du nit. Hmm. constitution texte bi du nit. mais xam nga texte. waaw attends rek. esprit la waaw moom la expliqué moo tax nag. bu lettre bi indi confusion da ngay ci esprit ba. ko bindoon esprit sax moom. loolu taxoon na Macky Sall mënul am troisième mandat texte bi texte dafay texte mënul invoqué constitution bu bu ren constitution bu. Euh, 2016 mënul invoqué constitution bu Ablaye Wade defoon xaw ma lan deux mille. deux mille un xaw ma constitution 2001 ba tey la parce que 2016 changé constitution mais révision. révision bi la révision bi la xam nga bu ko réviser. Mhm. ça veut dire que dañu constitution bu bees. parce que lañ ci réviser moo soppeeku ca 2001 ba. d' accord nañ waaw moom laa dama ne. xam nga texte yooyu dañ koy bindaat. mais dafa am lu ñu changé. la ñu changé moo tax niroowul ak bu 2001 bi moom laa bëgg a wax du dëgg. Mm. on est d' accord. d' accord constitution bu 2016 bii mënta wax ci mandat wu 7 parce que moom xamul luy mandat 7 ans. mandat cinq ans képp la xam parce que dañ si bind si biir le mandat. Mm-hmm. le mandat est pour une durée de cinq ans nangam nangam nangam nangam. donc nul ne peut faire plus de deux mandats consécutifs mooy mandat cinq ans consécutifs lu ko ëpp mooy foofu nag la ñu posé la question troisième mandat xaaral rek léegi nag fii fu ñu fiy yeggee mais wax dëgg yàlla ngir yàlla bàyyi leen conseil constitutionnel bés bu ñu ci yeggee conseil constitutionnel wax mais honnêtement eh, eh. on ne moo njëkk wax ne ñoom ba ñuy dem ci ab laay Wade président Ablaye Wade di wax ne dafay briguer troisième mandat xamoon nañu pertinemment que président Ablaye Wade amoon na droit troisième mandat dañ doon bëgg a influencer peuple moo tax ñu ne troisième mandat ça c'est malhonnête te loolu bu ko sénégalais yi fàtte bu leen kenn dugal ngeen ñuy dem di dee ci ci ci ci ci ay manifestation parce que ku ci dee say waa kër ay perte un point un trait Sénégal day continuer ñoom ñooñu deewuñ ci ndax ñu ngi carte ëllëg lu ñu mën a am ak lu ñu mënta am kon bu ñu dugal nit ñi bu ñu nax nit ñi aujourd'hui la constitution sénégalaise ne connaît qu'un mandat de cinq ans. li lii le président Macky Sall est son premier mandat de cinq ans. il le fera dina représenter ou du représenter wax dëgg yàlla paaka du jiitu nit ci mbaram. c'est pas le président qui choisit sa candidature. Le président appartient à une coalition. Et l'architecture de la coalition est là. Et la coalition Benno Bokk Yakaar ira aux élections présidentielles de 2024 avec son appareil, quel que soit son candidat. D'accord mais nooy jàggatee waxi Macky Sall ci troisième mandat bi mu ne euh, en 2019 bi mu bëggee ñu fal ko dafa taxaw mu wax ne man mandat bi ngeen may fal ni bii mooy sama premier mandat bu ngeen ma falatee sama deuxième mandat donc man pare naa ci ñu interpellé waat ne ay affaire de troisième mandat kenn du ma ci eh, kenn ma ci xaar kenn du ma ci fekk. Mm. nan ngay jàngate waxu Macky Sall boobu comme ni nga def ni nga jàngate waxu Barthélémy xanaa gëm ne li mu wax noonu rek moo nekk ci moom léegi nag xam nga damay jox exemple président Macky Sall ba mu ñëwee ci mandat sept ans bi dafa waxoon ne dama bëgg an wàññi sama mandat te loolu moo nekkoon ci moom loolu la bëggoon. il pouvait le faire. il peut pas. si il on a anticipé élection yi. il pouvait pas. mënoon na anticiper ah déet pour respecter kàddoom pour respecter kàddoom. ko neexoon mu mu anticiper élection yi yaakaar. pour respecter kàddoom lu mm. pour mu consolider kàddoom ma pour mu consolider suñu démocratie xam nga lu ma suñu démocratie. Mm-hmm. respecter suñu charte ndeyu néew lu mu wax. respecter suñu calendrier électoral loolu lañ ko fajee loolu lañ ko falee mais imaginez un président buy buy avant changer d'élection pour tout simplement apaiser sa conscience yéen le président boobu ngeen bëgg. sa veut que le président il peut faire ce qu'il veut. wax buy wax di def di di respecter la ñu bëgg. xam nga lan mooy président parce que kenn kenn soxla ko dara bi muy wax ah moom la neexoon mu toog ba ne damay wàññi sama mandat wax ne. kenn forcé wu ko déedéet bi muy wax ne damay fa waa mandat bi suñ ma falee dama bëgg ñu wàññi mandat bi au lieu de sept def ko cinq ans. Hmm. boobu nekkagul président boobu bi ñuy campagne la la ne nekkagul boobu c'est c'est monsieur boobu c'est monsieur Macky Sall président de l'alliance pour la république il faut pas confondre ak Macky Sall bu toogee nekk président de la république xam nga lan moo ko tënk la constitution du Sénégal ba mu ñëwee toog ne man de waxoon naa ca ba may campagne damay wàññi mandat bi def ko sept ans il a écrit au conseil constitutionnel parce que moom moomatul réew mi moomul Sénégal. ba mu bindee conseil constitutionnel conseil constitutionnel ko mandat bi moom moo ko peuple bee ko moom. mënoo wàññi mandat bi. te constitution may na ko mu anticiper mandat yi euh, euh, tout simplement parce que après c'est sa conscience. non man loolu d'accord ma ci. léegi nag ñun ñëpp ay sénégalais lañ. yow d'accord ci loolu sax da doon compliqué. parce que parce que beneen kii la il faut nga démissionner après. après exactement day doon benn cas public boo xamante ne mais mën na ko def mais mën na ko def mais lu tax muy def loolu ah, mën na ko def lu tax respecté constitution nekk un délit pour man ba mu koy wax boo gënoon xam li ko ci mën a fekk dara fekku ko ci xam nga lu ko ci fekk xam nga lan moo ko ci fekk mhm. dem mandat sept ans ñëw 2019 sénégalais yi renouvelé mais troisième mandat bi xam nga fan la ñu mën a yóbbu ci ci wàllu wàllu dal ak jaxasoo réew man gisaane gisaane politique man loolu sama affaire du ñu yóbbu fenn démocratie man sama question sama question Sénégal lu gën a garaaw jaar na fi te dara xew fi ma ko bëgg dugal ci troisième mandat bi rek mooy dama gis dëkk yi ñu wër yëpp yu bëri actuellement ñi ngi def ay pour régler mbir moomu Sénégal ñu dem ba mois dese xamuñu ndax suñu président day dem wala dem yeneen ñi ngi commencé di ko gérer Cap Vert bi nekk ci wet gi bu ñu jëlee exemple euh, Ghana dëkk yu bëri ñi ngi def ay yoo xamante ne côté démocratie fi vitrine si yaa ngi may reetaan. dama lay rek <laughs> dama lay rek parce que li may def mbiru day mel ni ay ay yaa ngi leen di wax leerul suñu bopp lan moo ci leerul seen bopp bi leeral la mais yéen leerul suñu bopp xam nga pour ma Sénégal démocratie fi mu toll war naa war naa jomb àddina bi ñu koy joxoon naan ñi leen ngi xeex ndax seen président dana dem def troisième mandat mhm. pour man loolu rek ne serait-ce que loolu war war nañ ko mën a moytandiku xam nga yéen loolu ñun yeggaguñ si mbiru mandat mais boo amee xeex dina am attends rek xeex dina am dalee lenn président bu sampaat waaw léegi mënuñu xeex waxtu bu jotagul mënuñu koo julli xam nga problème bi am yéen ñi yéen a ko indi parce que yéen yéen a ma laaj si affaire mandat mm. nit ñi yéen a naan ñun xamaguñu leeraguñu mais suñu réew ni muy doxee waxi mandat dafa am jamono buñ koy waxee dëgg la wala dëgg waxi mandat dafa am jamono buñ koy waxee mais xoddeeku balaa ngaa lakkale. lan mooy xoddeeku balaa ngaa lakkale suñu réew dafa mës a lakk. boo gisee ndobin ku ndobin ban ndobin. dañoo doon 2011. à l'horizon di 13 morts 13 ñu basé ko si lan man Barthélémy Diaz vidéo boobu def ne ñoom xamoon nañ ne président Abdoulaye Wade amoon na droit troisième mandat dañu bëggoon nax peuple bi man su ma nekkoon président de la république keroog Barthélémy Diaz du fanaan këram ah non dama lay jox exemple parce que aveu manipulation boobu dafa garaaw parce que 13 morts yooyu ça veut dire que ñoom ñoo leen rey parce que ñoo leen nax gëmloo leen ne président Abdoulaye dafa am droit troisième mandat amul droit troisième mandat te amoon na ko président Abdoulaye Wade amoon na droit troisième mandat forcé na ba mu demee élection lu xew am na ko wala amu ko exactement kon nag le peuple est souverain ñu ngi yor suñuy carte pourquoi dem di dee nañ toog ba urne jot et pourquoi ak se précipiter lan ngeen di yàkkamti bu dee waa opposition bi lu ñuy yàkkamti bu dee wóolu nañ seen bopp kay gaaw bëre yàgg bëre nañ xaar rek ba waxtu ba jot bu fekkee mbër bu fekkee mbër mais doo xaar ba mbër mi mbër mu retraité mbër moo xam ne retraité am na âgé na waaw man championnat boobu fa ubbeekul na ku nekk entraîné rek <laughs> waaye boo seenee mbër bi di entraîné mais ñi muy àndal di ko bàkk naan kan da bëri. ah, ah da kenn préparé wul kenn deful nag mu dugg de te bu duggee te mu jaxase carte de. waaw ku leen wax ñu ñu nekk ñu dox seen maayin bu dee loolu la. non mais sax bu fekkoon te ah, ah, ne ñu war a ñëw dëggantaan ñu mm. nëbb ko bu ko defee yéen ngeen préparé ne kee ngeen di bëreel kay ñëw ne bu ñu da leen facilement parce que moom préparé ko mais c'est une tactique ça peut être une tactique pourquoi du ngeen ñu concéder loolu mais gis nga soyons plus sérieux on en démocratie le Sénégal est un pays souverain Sénégal kenn mënu ko jaxase kenn mënu jaxase xelu nit ñi le peuple sénégalais est un peuple souverain on a traversé nag des difficultés yoo xam ne dañu ànd dafa ànd ci évolution àddina àddina nit ñi dinañ jaxase nit ñi ba guerre am fa Rwanda ngi ni l'exemple du Rwanda Rwanda ba góor ñi xeexee bay reyante bay jeex jigéen ñi jóg jóg taxaw ne léegi nag réew mi yéen nag yéen góor ñi dañu bëgg ngeen dem toog xam nga ñun parité la ñu wax l'Assemblée nationale du Rwanda est à plus de 68 pour cent composée de femmes ñooñu waxatuñ